Merci Safia. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Nous vous remercions d'avoir pris votre temps pour venir ouvrir cette présentation de presse. J'anime en présence de plusieurs membres de la coalition, en l'occurrence Cheikh Tidiane Dièye et Madame Lamine Diop. par le DEF de la monsieur le docteur Diallo Diop Blondin, du RND, et monsieur Badié Mbouch, de Yon Et nous avons l'ex qui honneur porté nous également, un doyen qui nous est très par rapport à, au combat qui nous mène et nous euh, il s'agit notamment du doyen Moulignan. me permettrait de saluer tous ceux qui ont fait le déplacement en dehors des journalistes, qu'ils soient militants ou sympathisants, mais de saluer également tous ceux qui nous suivent à travers notamment les réseaux sociaux. J'ai beaucoup entendu que vous aviez exprimé beaucoup de nostalgie à notre endroit. Je peux vous dire que c'est réciproque et que Inch'Allah, nous reprenons du service après une campagne présidentielle qui a été assez éprouvante. Mais nous reprenons du service parce que la situation nationale également l'exige. Nous avons convié pour donner notre opinion sur une question qui apparemment agite l'actualité, occupe les devoirs de l'actualité depuis quelque temps. Il s'agit notamment de ce qu'il est ce qui est communément appelé le dialogue national. D'emblée, je vous dirais que nous ne participerons pas à cette mise en scène. Nous considérons que c'est une mise en scène reconvolex du reste. Nous n'y participerons pas, mais à la place, nous proposons au peuple de dialoguer avec lui. Parce que le véritable dialogue doit se faire de manière permanente avec ce peuple qui souffre, mais qui souffre de l'incompétence, du manque de patriotisme, mais surtout du manque d'intégrité et de probité d'une élite politique. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous en tirons un certain nombre d'abord. D'abord, tiré de la bouche même du principal instigateur de ce cirque national, le premier aveu, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec parce que il nous semble que les Sénégalais ne se posent pas la bonne question. Où est-ce qu'on a vu dans le monde Où est-ce qu'on n'a jamais vu dans le monde un président qui prétend avoir été élu au premier tour avec 58% des voix se retrouver le lendemain à convoquer un dialogue national qui prend d'ailleurs les allures d'une conférence nationale. Le Sénégal est-il en crise Le Sénégal est-il en guerre interne ou avec un, un ennemi extérieur le Sénégal est-il en situation de catastrophe Il faudrait que le principal instigateur, notamment Macky Sall, s'adresse aux Sénégalais pour lui dire quelle urgence il trouve ou quel danger guette aujourd'hui le Sénégal pour qu'il éprouve le besoin d'amoter toute la nation autour d'un supposé dialogue national. J'ai tantôt dit qu'il faut le qualifier en une conférence nationale. Et j'y reviendrai parce que la, le champ que doit couvrir cet exercice ne laisse absolument aucun domaine de la vie de la nation. Ça veut dire que le Sénégal est une crise très profonde. Quand on sort d'une élection qui s'est passée pas normalement, ni correctement, mais au moins au lendemain de cette élection-là, il n'y a eu ni insurrection, ni euh, occupation des rues. L'opposition, dans sa totalité, a préféré adopter une attitude politique qui consiste simplement à refuser légitimer un hold-up électoral, une victoire technique euh, fabriquées de toutes pièces dans les laboratoires du ministère de l'Intérieur. Elle s'en est tenue à cela. Et ce silence de l'opposition avait fini par surprendre, mais pratiquement émerveiller toute la, tout, toute nation sénégalaise, mais également toute la communauté internationale. Mais ce silence était extrêmement pesant pour celui qui s'est autoproclamé vainqueur, puisque son directeur de campagne et ex-premier s'était fendu d'un communiqué la nuit même du scrutin pour se déclarer et se proclamer vainqueur à la place des organes habilités à le faire. Il suppose avoir gagné. Il a dû gagner. Il a dû présenter au moins un programme aux Sénégalais. Je crois qu'il avait un programme qui s'appelle Liguel Elec. Quand vous sortez d'une élection que vous supposez, vous prétendez avoir gagné de manière écrasante, et sur la base d'une offre politique, vous gouvernez. Vous n'avez pas besoin d'amener toute la, toute la nation pour leur demander de gouverner à votre place, parce que c'est de cela qu'il est et je vais y revenir. est pendant ce temps le programme qu'il avait vendu aux Sénégalais Nous considérons d'ailleurs que les Sénégalais doivent désormais parler du gouvernement de Famara Ibrahima Sagna. Parce que Famara Ibrahima Sagna, sa mission, c'est de fabriquer un programme. Parce que quand un de ce genre englobe les questions politiques, les questions économiques et les questions sociales, il s'agit carrément de fabriquer un programme à la place de Ligue et à la place de Sénégal émergent. Ça, la vérité. Et donc, désormais, nous devons considérer que la manœuvre qui consistait à supprimer le poste de Premier ministre devait aboutir à des et demain, éventuellement, de se retrouver pour le partage du gâteau euh, étatique. Ce qui nous amène à dire que l'élection de février 2019 n'aura servi à rien, finalement. Parce qu'il a servi à élire un président fantoche ou fantôme. Le deuxième accord, c'est un accord de Rougradise. Lorsque Macky Sall lui-même dit Je veux qu'il y ait une confiance pour qu'on travaille ensemble dans ce pays. Je ne suis plus. Je ne suis plus dans les affaires de Jules il n'y a plus de danger pour moi, je n'ai rien à perdre en ce moment. Quel aveu qui résume le caractère bipolaire de l'homme. De 2012 à 2017, il n'a pas travaillé pour le développement du Sénégal. Car otage de son obsession pour un second mandat, qu'un bilan ne pouvait lui donner, il était dans les manigances et les manœuvres pour écarter, exiler, révoquer traquer de l'opposant, modifier les lois à sa guise, etc., etc. Mais c'est bien fini pour lui, comme il le dit. Car n'a pas besoin de son engagement de ne pas faire un troisième mandat. Nous ne lui laisserons jamais cette latitude d'avoir à violer une énième fois la Constitution pour briguer un troisième mandat. Nous savons que son engagement de finir avec son mandat en 2014, en 2024, suivra le même destin que ses précédents engagements. 100 000 emplois pour les jeunes par an, gouvernance sobre et vertueuse, mandat de 5 ans, etc. Pour son présent engagement, même son conseil constitutionnel ne pourra lui venir en aide pour lui permettre, comme il le décide déjà, de contourner les règles de la charte fondamentale de ce pays et briguer le troisième mandat. Le troisième aveu est un aveu d'incompétence et d'incapacité. Il dit, je le cite, et il s'adresse à l'opposition, si on ne se réunit pas, des étrangers vont débarquer pour nous diviser et s'accaparer de nos ressources. Au-delà d'un aveu inquiétant, d'un leader extrêmement faible, qui n'est fort que lorsqu'il s'agit de mater de l'opposant et qui courbe l'échine face aux intérêts étrangers. Au-delà donc de cet aveu extrêmement inquiétant, je tiens à rappeler aux Sénégalais que c'est lui, Macky qui a vendangé sciemment toutes nos ressources malgré nos alertes répétées. Il a sciemment signé des contrats qui était extrêmement désavantageux pour le Sénégal, il l'a fait en connaissance de cause et aujourd'hui, il vient vendre aux Sénégalais soi-disant, nécessité de faire bloc, sinon les étrangers vont débarquer pour prendre nos ressources. Ils n'ont pas besoin de venir prendre nos ressources, il leur a déjà livré ses ressources. la seule chose que le peuple sénégalais doit lui rappeler et réclamer, C'est sa promesse électorale lors la campagne de renégocier tous les contrats. Nous étions tous ici quand, lors de cette campagne de février 2019, s'est engagé à renégocier les contrats. Nous savons pertinemment qu'il n'en a pas le courage. Espérons qu'il ne l'attend pas de la commission ou du dialogue qu'il a instauré. C'est lui qui a pris l'engagement de renégocier ces contrats, qu'il avait sciemment signé, qu'il ait le courage de le faire, et je ne vois pas comment une commission qui n'a pas été élue par les Sénégalais peut procéder à la négociation de ces contrats. Voilà un homme qui n'a pas le courage de ses responsabilités et qui se défausse sous eh, prétexte de la nécessité de dialoguer qui se dépose sur une commission qui, où on retrouve tout et rien et qui doit être compétent en toute matière. Le quatrième élément, c'est le manque de sincérité de Macky Sall. Voilà un homme qui sera à l'élection présidentielle sans présenter dans son programme politique un projet institutionnel. Après le référendum constitutionnel de sur ces 15 mesures, Après avoir imposé de manière personnelle et unilatérale une réforme de la loi électorale pour instaurer son parrainage, après aussi son passage en force électorale, il décide d'une réforme constitutionnelle qui voit 22 articles de la être modifiés et avalisés par sa majorité mécanique parlementaire sans concertation et sans que personne Pour un homme de dialogue, il avait catégoriquement et systématiquement refusé de nommer une personnalité neutre pour l'organisation d'élections démocratiques et transparentes au Sénégal. Nous avions tous, nous nous tous de son Dumakodef, Dumakodef, nous lui réitérons Yahaï. Nous nous dialoguer, nous nous dialoguer. pas la peine tous les émissaires du monde. Nous ne sommes pas intéressés par son dialogue. Pour un homme de dialogue, Rappelez-vous qu'il avait péremptoirement décidé, le 1er mai, de rompre avec la tradition sociale de concertation en assénant qu'aucune augmentation de salaire ne serait acceptable pour les travailleurs. Jusqu'à preuve contraire, la parole de Macky ne vaut pas une copette. Rappelez-vous de l'engagement solennel de réduire son mandat de 7 à 5 ans. C'est son premier et son deuxième bluff nationaux parce que le dialogue, on en est au troisième ou au quatrième essai, avec les dialogues mornais de 2016 et de la trahison contre les conclusions des assises nationales et de la Commission nationale de réforme des institutions. Et je suis ébahi de voir des acteurs qui se disent des assises nationales se bousculer au du palais pour assister à un dialogue. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce dialogue qu'on est déjà dit dans les assises Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui dans ce dialogue qui n'était dit dans les décisions nationales, qui s'était engagé à appliquer, lui, Macky Sall On est de s'amuser avec le peuple sénégalais. On va perdre du temps. On va mettre de l'argent pour satisfaire les désirata et le projet funeste de l'homme. Les grandes, la Commission nationale de réforme foncière qui avait déposé ses conclusions la a mis le coup là-dessus. Les grands, les grands messes de l'éducation et de l'administration. On se rappelle, inauguré en grande pompe. Il y avait des affiches partout au va de l'administration. On avait mobilisé toute la fonction publique à Diamniadio pendant 4 ou 5 jours. Aujourd'hui, rien. La décision euh, unilatérale de report des élections locales, j'en ai déjà parlé. Alors, comment donner, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais comment donner du crédit à cet homme. Vous savez, quand vous avez dans votre propre famille un, un enfant habitué à raconter des choses, à dire des choses qui ne sont pas conformes à la vérité, et qui se lève beau jeu pour vous Papa, maintenant le sujet Vous n'allez pas y tout suite. Il le mettre à l'épreuve au moins. Le cinquième point, c'est que nous assistons à un vaste cirque sous, entre parenthèses, présidence neutre. Je n'ai rien contre ceux qui ont été désignés. Je ne considère pas qu'ils soient si neutres que ça. Mais où étaient-ils, ces personnalités crédibles, pendant sept ans que Macky Sall foulait du pied les règles fondamentales et sacrées de notre consensus national On n'en a jamais entendu un seul ne serait-ce que faire une tribune pour rappeler à l'ordre par rapport à ces délits. Ils étaient où quand par manque de patriotisme, le même Macky Sall notre économie aux intérêts étrangers et vendangeait nos ressources naturelles dans une gestion nébuleuse et clientéliste. Ose-t-il seulement parler à leurs commanditaires des criminels économiques et financiers qu'ils protègent et même encourage par des nominations. On ne parle pas de la gouvernance dans ces fameuses, ce La corruption endémique, tous ces criminels à col blanc qui ont pillé la poste, qui ont pillé le groupe, qui ont pillé la direction générale des impôts qui ont pillé le port autonome et qui aujourd'hui sont protégés par ce Macky Sall, qu'il promeut même quelquefois dans des postes de ministre ou de directeur général. est-ce qu'ils oseraient aller lui parler de ces questions alors qu'ils ont été intégrés par des rapports des corps de contrôle Le sixième point, c'est que ce dialogue, en réalité, cache des objectifs inappuyés. Le premier objectif, c'est que ce dialogue est une pour se décharger la situation catastrophique du pays. Il cache, il cacherait la réalité des finances publiques

un prétendu dialogue et demander à d'autres acteurs d'endosser et d'assumer à sa place. Il est clair d'ailleurs qu'à ce jour, l'État n'a pas les ressources nécessaires pour organiser les élections locales à la date du 1er décembre C'est ça qu'il veut cacher. Et nous constatons tous que beaucoup de ces projets, à coût de milliards, crevant le plafond de l'endettement et frappé du gigantisme maladif de mais surtout inutile, sont à l'arrêt. Vous savez, il y a sept mois de cela, quand je vous disais que l'inauguration du théâtre, c'était de la poudre aux yeux, et que je le défiais de, faire un retour c'est par la Diamniadio qui reviennent avec le terre, on avait crié aux oiseaux de mauvais augure. où est-ce qu'on en est avec le terre J'avais dit que le terre ne circulera pas avant le mois de juin. au mois de juin et le terre ne circulera pas. Voilà la gouvernance de Pakistan. Et pendant ce temps, aucune mesure allant dans le sens de soulager les cris de détresse des populations n'ont été prises. Combien de morts devrions-nous enterrer avant d'espérer une attention du dépositaire des pouvoirs l'arsenal, les moyens colossaux qu'il a investis dans l'arsenal de répression pour parer à toute manifestation de l'opposition. S'il avait été pensé le tiers pour sécuriser les Sénégalais, on n'en serait pas à cette situation d'insécurité devenue pratiquement endémique. Combien d'entreprises fermer Combien de jeunes devront se jeter dans les bras d'océan Combien de femmes agressées Combien de détournements opérés combien, combien, combien, la liste peut être longue. Ce pas moi qui vais apprendre aux Sénégalais, parce que c'est eux, eux, ils souffrent dans le chair, ils n'ont pas besoin qu'on leur cite une liste euh, euh, euh exhaustive. Mais le vrai souverainement politique de la manœuvre, c'est la caution qu'ils cherchent pour obtenir le second report des élections locales après le premier qui a fait passer la date de juin à décembre 2019, d'obtenir le report ultérieur des élections législatives et de probables velléités de modification de la Constitution pour permettre le maintien du président en exercice au terme de son second et dernier mandat. Ça, c'est les véritables, ce sont politiques de toute cette manœuvre. L'autre objectif demeure évidemment l'absolution des crimes économiques de son entourage qu'il encourage par une impunité, si ce n'est carrément par des promotions ministérielles ou autres directeurs généraux. J'ai rappelé tantôt des cas, ils font lésion, et ces criminels à colbans n'empêchent les Sénégalais en organisant des meetings à Le septième point, c'est la duplicité d'une certaine opposition, et même l'incohérence de cette opposition. vous ne pouvez pas avoir aboyé il y a quelque pour dire que nous ne reconnaissons pas, nous ne pas, et être les premiers à vous bousculer pour donner du Monsieur le Président ici, Monsieur le Président là-bas. Ils heureux de serrer la main du Président. Je crois qu'ils rêvent tous, quelque part, de retrouver euh, euh ces, ces, ces, cette C'est un secret de polichinelle d'ailleurs. Macky a son projet totalitaire. Macky Sall est un dictateur rampant. Il a son projet totalitaire. Il l'a longtemps théorisé, dans, ça a été longtemps théorisé par ses officines, et lui-même, en annonçant dès son accession au qu'il allait réduire l'opposition sénégalaise à sa plus simple expression. Seul un dictateur peut parler comme ça. Une démocratie ne vit que par la bipolarisation entre un pôle qui gouverne et un autre pôle qui s'oppose. Seul un dictateur peut dire je vais réduire l'opposition à, à, sa puissante expression. Ce projet a connu un début de mise en œuvre par le remplacement de l'état de droit par le pacte État. Ce projet a connu un début de mise en œuvre, je disais, par le remplacement de l'état de droit par le pacte État, d'une gouvernance sobre et vertueuse par une gouvernance crânique et gabegique, en excluant le Sénégal des juridictions internationales, en menant des la liste n'est pas exhaustive. Mais cette méthode semble avoir atteint ses limites. Cette méthode semble avoir atteint ses limites, mais le projet de Macky Sall de réduire l'opposition à sa plus simple expression demeure. Et il faut changer de stratégie. En faisant quoi Il fantasme sur une forme de gouvernement d'union nationale qui ne dit pas son nom. élaborer ensemble un programme commun, politique, social et économique, et ensuite gouverner ensemble, ou plutôt se partager le bonbon étatique. Ainsi, il n'y aura personne en face pour s'opposer aux mauvais choix économiques, à la corruption gouvernementale et étatique, aux dérives et abus autoritaires, aux manipulations du calendrier républicain et de la Constitution. Je veux rassurer ici Macky Il aura une opposition en face de lui. Et une opposition ferme, pour ne pas dire radicale. Ce n'est pas personnel. Nous n'avons rien contre la personne de Macky Sall. Il faut qu'il soit, qu soit très clair. Mais nous avons tout contre sa façon de gouverner, contre sa vision extrêmement limitée. C'est lui qui personnalise le débat. Mais le débat n'est pas personnel. C'est lui qui s'est juré de n'avoir jamais une opposition en face de lui. Dès lors que vous dites que je suis contre Macky il lâche la churme contre vous. C'est des insultes, c'est des diffamations, des affabulations, des mensonges quotidiens. C'est une traque permanente, l'instrumentalisation de la justice, mais cela ne se verra pas d'une opposition, il aura en face de lui une opposition. Le pouvoir n'est pas éternel, aucun pouvoir ne l'est. demande à Omar et Béchir, quand vous allez dans nos mosquées, nos imams de Aïna Firaoun, Aïna Haroun. C'est trop loin. Demandez à Al-Béchir, demandez à Bouteflika, demandez à Ben Ali, demandez à Saddam Hussein, demandez, demandez. Il quittera le pouvoir. Ça, c'est une certitude. Il ne peut pas réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il peut capter une certaine opposition qui n'attendait certainement peut-être qu'un clin d'œil. Chacun a ce qu'il va négocier, ou ce qu'il va chercher. Mais il nous aura en face. Nous respectons la liberté de chaque organisation politique dans l'opposition de ses choix, mais aller au dialogue, soyons clairs, c'est être en collision avec Macky et se livrer à grand écart qui s'assimile à un à une forte de ralliement. Celui qui se dit élu au premier tour à l'issue de l'élection présidentielle de février 2019 est supposé l'être suite au programme politique qu'il a présenté aux Sénégalais dans un état de droit. Après les élections, il n'y a que deux camps politiques, ceux qui gouvernent et ceux qui s'opposent. J'ai bien dit deux camps politiques. Après, il y a la société civile, après, il y a le citoyen, mais politiquement, il y a deux camps politiques, le camp qui gouverne et le camp Il faut que ce soit très clair. Et chacun maintenant doit faire son choix. On s'oppose ou on est avec Macky Sall. Mais je ne suis pas ici, je ne suis pas là-bas. se tromper, essayer de tromper le peuple. Dans ce postulat bien simple, de deux camps bien définis, qui se doivent respect mutuel, et c'est à Macky de respecter son opposition, ce qu'il n'a jamais fait. Dans ce postulat bien défini, les seules concertations imaginables entre le pouvoir politique et son opposition sont d'ordre technique et portent sur les questions politiques et institutionnelles qui n'appartiennent pas à Macky Sall. Ces prérogatives constitutionnelles ne concernent pas le processus électoral ni la question de nos institutions. Ça transcende sa gouvernance, ça appartient à tout le peuple sénégalais. Et c'est les seules questions qui peuvent faire l'objet de discussions, pas de dialogue. ça doit faire l'objet de concertation et ça c'est exigé par le calendrier républicain, ça a fait depuis de nombreuses années. C'est qui est venu briser ce consensus. En dehors de ces questions, c'est qui a son programme économique, il a son programme social, il n'a qu'à le et nous, on est là pour dire que ça ne marche pas, que ça ne va pas. C'est ça démocratie. Répondons au dialogue de Macky Sall, ce n'est pas seulement un reniement de la position communément exprimée de refus de législation de son mandat. Au lendemain de c'est aussi une décision d'intégrer son gouvernement délégué à euh, la commission euh, dirigée par Famalek Ibrahim Sagna. Je tiens à que les observations que j'ai faites n'ont de personnel, je ne les connais même pas, je ne les ai jamais reste sur principes. Je terminerai par dégager des perspectives et lancer un appel à nos militants, nos sympathisants, de toute la coalition. Nous lançons un appel à la mobilisation et à la vigilance. Nous n'avons jamais accepté et n'accepterons jamais de subir l'agenda nébuleux de Macky ou de qui que ce soit. Le nôtre est bien tracé il s'agit de poursuivre et de parachever cette œuvre de débarrasser qui consiste à débarrasser le Sénégal de ses entrepreneurs politico-affairistes et de réconcilier le peuple avec la pratique politique. Cette ligne est claire, nous ne pouvons pas la dissoudre dans des manigances et dans des, compromissions. C'est ça la, notre ligne politique et c'est à cela que nous appelons tous ceux qui croient à notre combat et qui ont été nombreux à voter pour nous. et encore peut-être beaucoup plus nombreux pour nous. Nous disons que c'est ça notre pays et nous ne compromettrons avec rien d'autre et sous aucun prétexte que ce soit. Ni pour la supposée unité d'une opposition, aux objectifs apparemment totalement éclatés, ni pour les beaux yeux de Macky qui est confronté à ses propres limites. Nous y œuvrons et impulsons une cadence soutenue dans les prochaines semaines par la consolidation de la coalition et le renforcement de nos partis respectifs. En ce qui nous concerne, nous, PASTEF, j'en profite pour annoncer que nous acheminons vers un grand congrès dans une date qui sera communiquée incessamment. Ensemble donc, nous serons également plus que jamais du côté du peuple dans la surveillance et la dénonciation de la gouvernance malsaine et la prise en charge des problèmes sectoriels comme globaux. une série de questions écrites adressées au gouvernement, suivies de conférences de presse décentralisées, sera déroulée dans quelques jours. Nous rejetons ce simulacre et appelons les forces politiques et citoyennes patriotiques à faire front contre les funestes desseins politiciens et de Macky Sall et ses complices de tous bords. À la place, je l'ai dit dans le titre, nous proposons un dialogue avec le peuple nous proposons un dialogue franc, profond, sincère, un échange mutuellement enrichissant avec ce peuple. Nous avons proposé un programme lors de cette campagne. Tous les spécialistes, tous les observateurs qui ont vu les programmes s'accordent que nous avions proposé le meilleur programme pour le Sénégal. Et c'est dommage parce qu'on va perdre encore 5 ans à partager. Nous avions toujours dit qu'il y a le temps de l'opposition ferme et le temps de la, des propositions. Nous allons renouer contact avec ces populations, dans tout le Sénégal et dans la diaspora, pour des échanges féconds, pour un dialogue où nous apporterons ce que nous avons. Peut-être lors de la campagne, nous n'avons pas suffisamment pu partager ce programme, mais où nous prendrons de ces populations également les préoccupations que nous poserons de la manière la plus ferme, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Nous appelons, surtout la jeunesse à refuser qu'une énième fois les mêmes acteurs ne complotent contre elle dans un sempiternel exercice de partage du gâteau étatique. Nous l'appelons à se tenir à engager l'inéluctable bataille pour parachever la mise hors circuit de ce système mafieux. Je vous remercie. ma tënk ko ci wax gannaaw bi ñu nuyoo ñëpp jiital ci suñu mbokk journaliste yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte ñëw teew tey teg ci ñi nga xam ne suñuy soppe lañu suñuy wëlëre nañu ci li ñuy liggéey ci politique waaye seen yitte ñoom it ñëw fekke ci conférence de presse bi teg ci it suñuy soppe wala suñuy partisan militant sympathisant ñi nga xam ne amaana ñu ci bëri ñu ngi seetaan ñuy sax ci direct bi di leen nuyu yéen dégg nañu nag seeni woote xam nañ ni namm ngeen ñu waaye ñoo leen raw dafa fekk rek bu ñu génnee ci li ñu jóge yéen ñëpp xam ngeen ni métti la woon lu jafe woon jaadu woon na ñu loolu tuuti noppalu defaruwaat waaye ci gën a am solo euh, jublu ci nu ñuy organiser liggéey bi ba mu gën a ñoŋee noppi gi na te tekk tekkaaral gi nag defe naa bëri woon bëri na mu jaaxal dem na ba Ousmane Sonko bu waxee ñu wax bu waxul ñu wax Euh, dégg nañ ci lu ne nag dégg naa sax ñu ne waaw dañu dañu dañu dañoo tëju dañoo daw parce que dañoo ameel ay nit ameel ñu kenn fukki dërëm ñoo ngi sant yàlla kenn benn Sénégal buy ginne sax ameeluñu ko ngi sant yàlla bu baax a baax a baax parce que ñun def loo mën boo tëddee nelaw ñun noonu lañuy politique soxlawu ñu jël xaalis di jënd nit ñi gannaaw loolu nag ma wax ni li tax ñu woote ndaje gi mooy li lëmbe réew ñu tuddee ko dialogue national mooy penco dégg naa loolu la ko waxee penco national danañ dañuy penco gannaaw bu ñu pàccooy nag ñu ëpp juróom-ñaari dafa si yéene continuer pàccoo ndax pàccoo moom defe naa ci ADN la nekk ku ko xas ba tàmm mënatoo nee nañu léegi il faut ñu pencoo ñun ñu ne nag ma teel ko gaaral ñëpp nun demuñu ci pencoo boobu parce que lu dëgg lalul rek ñun duñ ci bokk doñ ca dem waaye ca wet ga lañu bëgg a bokk ak askanu mooy bokk ak waxtaan bu yaatu waxtaan boo xam ne du ay nit la seppi ñu naan kii naw nañ ko ci xam-xamam kii naw nañ ko ci euh, kilifteefam bi mu yor kii naw nañ ko ci déedéet waxtaan la boo xam ne bés bu ne na nekk te dinañ leen fekk si fa ngeen ne gox ca goxam dëkk ci dëkkam fii ak bitim réew fekk si leen bokk ak yéen waxtaan bu xool boo xam ne weccee lay doon danañ leen andil nun ndax amaana peut-être jamono campagne bi gàttoon na ba la ñu bindoon muy programme dañuy am seetlu ñëpp ak ràññeet jàpp nañ ni mooy li gën ci programme bi ñu proposé woon amaana campagne bi ni mu tëree may ñu woon ñu jukki leen ci yëpp dañ ñëw ak loolu ak yéen waaye dinañ ñëw jël ci yéen it ba xam lan mooy seen i jàmbat bu baax a baax buñ ci jógee nag lañ ca war a def ñun dinañ ko def ndax ku xam Ousmane Sonko xam Pastef waaye xam ñi ñu àndal ñépp ci coalition xam ngeen ni la ñu dugal ci politique du séddoo ay poste waaye taxal askan bi la looloo andi ñu andi xeetu politique boo xam ne ni ñi faral ñu ko woon gis wala tàmm ñu ko woon looloo tax suñu façon politique teel a sonnal ñi ñu jàkkaarlool parce que li ñu xamoon ci politique bi lii loolu la ñuy wéyee nag nekk ci côté askan bi di défendre askan bi boole koog nag gën a farlu ci liggéey li nga xam ne nag moom nañu téye ñun parce que ku dem ci élection génn ci yàlla may na ci lii mu la ci may te yaa gënoon a néew coalition yaa gënoon a néew budget campagne da war a dellu sant yàlla bu baax a baax te xam ni rek fekk yoon bi nga nekk boo ci wàccul dañu naan bu xëcc yàggee bu tàggul dina dikk te bu soobee yàlla du tàgg ba tax nag li ñu gis ci lii ñu woote dañ ciy jukki yenn jàngat rek bu ci njëkk mooy lii dafa wane ni Macky Sall lajj na te li tax mu garaaw mooy su doon daj dañu ne dafa ne moom moo fal ndax moom moo fal boppam def nañu élection ngoon sa balaa commission de recensement di wax wala ñu ne cour d'appel wax na ñi nga xam ne ñoom la yoon daganal ñu war a wax résultat bi moom moo njëkk a génn jiital ja yónni directeur de campagne am mu ñëw taxaw ne moom moo gañ kon moom moo fal boppam daa def pression ci ñi waroon a yoon mbir mi yépp ne leen wax leen ni man maa gañ kon su doon génn ci loolu nag dem prêter serment dawal sax ñetti at ñetti at doog a yi man nag tële naa waaye ñu fal la balaa sax eh, cour d'appel di joxe résultat définitif yi moom moo njëkk génn ne maa ngi woote dialogue national man dama ne li mu woote du dialogue national conférence nationale la te conférence nationale ñoo koy faral di woote ci dëkk yoo xam ne musiba dafa dal yàlla ñu yàlla musal ci musiba dëkk yu jógee ci guerre moo xam ñoo doon guerrante seen biir wala moo xam dañ doon guerre ak beneen dëkk beneen réew wala dëkk yoo xam ne natt dafa dal catastrophe naturelle yu doy waar dëkk yooyu lañ daan gis ñu dajale nañ def conférence nationale waaye Sénégal gi jàmm rek a fi am ñoo ngi sant yàlla bu baax yàlla na ko yàlla yokk ci weeru koor bi jóge nañ ci élection moom demoon na jënd armée armée la dajale woon yaakaar ne suñu génnee ci élection comme li muy def da koo waajal bu yàgg victoire technique la mooy li nga xam ne da koo da koo fabriqué moom ak ministre de l'intérieur waajal ko lu yàgg yaakaaroon nag bu génnee wax ko opposition nañ génne nañ taal réew mu def li muy def opposition bi magu ko woon que ni réew bi am na lu ñu jaral ñun woo ñu kenn ci biti ñu sànniwuñu xeex waaye nag am suñu sañ-sañ ne bu dee ñun rek lay xaar ñu daganal ko du gaaw a am loolu ndax kenn ci ñun du ko daganal ndax dafa daganut ni mu ni mu amee victoire loolu nag jaaxal ko mu wëlbatiku natt boppam xam ni situation réew mi fu mu toll doy na waar ma wax ko léegi Sénégalais yi xaw ñan ñoo gëmm ba woteel ko waaye nañu xam ni juróomi at yi dina métti lool ci réew mu Sénégal parce que situation économique bi doy na waar jamono ji ñuy wax ak yéen tembe budget national bi am na gap wala li mu ci li mu waroon am ci waxtu bi mat na 100 milliards fii ak at bi di jeex dina mat 325 milliards wala 345 milliards moom leb naa lebal lebal leb ba fi mu toll nii négociation yi mu bëgg a ubbiwaat ak FMI banque mondiale ñooñu nee nañ ko yow yaa ngi ñu amee ay arriéré xanaa kay di nga fay ba noppi looloo fi naan bor du am rak te amul capacité yu mu ko defee. jaaxle boobu mu jaaxle nag moo tax mu ne nag naa wut ñu ma ñu ma ñu ma yebbil mbir mi ndax cim réew mu mel ni Sénégal nga xam ne guerre amu fi problème amu fi suñu demoon ba ne waxtaan dafa war a am waxtaan bi ñaar a ko war a séq ma leeral mu leer bu baax su dee waxtaan bi benn la war a doon muy dialogue politique dialogue social nag boo koy def danga koy def def ak syndicat yi boobu beneen la dialogue économique boo koy def danga koy def ak acteurs économiques yi boobu beneen la waaye ñun du ñu syndicat ñu acteur économique ñun ay acteur politique lañu acteur politique dialogue bi la concerné mooy le dialogue politique mooy nañu wax ci fichier électoral bi nañu wax ci carte d'identité yi mu téye nañu wax ci kan moo war a organiser élection yi kan moo war a joxe résultat yi nañu wax ci yooya loolu mooy dialogue politique loolu moo concerne acteur politique acteur politique bu fi jóge ne ngi dem dialogue économique waxal ni damaa dem fekki Macky Sall parce que ki gagné andi programme am ne Sénégalais yi lii laa leen doon andi moom moo war a dérouler programme économique moo war a dérouler programme social am yooyu ay prérogative am la yoo xam ne constitution moo ko jox li ko constitution bàyyiwul nag li ko constitution bàyyiwul mooy le processus électoral moom moomu ko bokkul ci ay prérogatives les institutions moom moomu ko kon bu defee ba wëlbati gis ni jële na mu daal di woote ne gars yi ñëw leen dimbali ma di mu waroon njëkk a def mooy mu njëkk a taxaw ne peuple sénégalais ah maa fàgg woon de waaye nag mbir mi attanu ko parce que wax ji wax ji mooy mbir mi attanu ko amul gis-gis bi amul njub gi amul encadrement bi programme bi baaxul vision bi new moo tax ni mu waroon njëkk wax mooy gars yi tële naa booy walloo walla mu ne delloo naa mbir mi waaye ñëw bëgg a nax yi ne maa ngi woote dialogue national inclusif dem woo say nit ñu naan personnalité respectable personnalité neutre waaw personnalité responsable respectable neutre juróomi ñaari at yi Macky Sall ne fi di dëjaate di dóoraate di réformer lu ko neex di changer constitution bi lu ko neex mu def ko jël suñu koom-koomu réew jox ko tubaab yeeg ñaar yeeg ñu ko neex doog jàpp ñàmburam ana ñooñu fan la ñu ne woon kat moo leen mos a gis sax ñu bind benn bataaxal ne ah li xew ci réew mi attention parce que nag man fu may nawee nit mooy bu wax jotee nga wax dans l'intérêt du pays waaye mosoo ngaan waaye mooy ñaa ngi ni bokkul benn parti waaye saa su ne mu génne def chronique am wax ci réew mi keneen ak keneen lañ koy def waaye toog rek di gérer say ji ba su doon opposition moo jël initiative ne dam ne dañuy def benn initiative dem wala ne leen ñu dajee ñu woo gaay kenn du ñëw il faut que nguur wax ko pour ñu daw nag loolu ci tappale la bokk am réew tappale du ko tabax am réew naxaate ak naxante du ko tabax gis ngeen tubaab yi ëpp ñu xam-xam gënuñ ñoo baax réew yi ci jikko la ñuy rawante ak wane ni bëgg nga sem réew loolu mooy defar réew mais am réew moo xam ne kenn ku ne foog nga ni mën nga nax sa bopp nax ñëpp te loolay Sénégal wax ji nag du neex soo waxee ñu ne dafa arrogant waaye wax dëgg su jotee dañ koy wax donc délai googu moo tax mu andi di mu andi nag. may xamal sénégalais nii désormais bis ni ki tey bu ngeen di wax ci da ngeen naan le gouvernement de son excellence Famara Ibrahima Sagna parce que nag loolu lañ ko jox léegi ah parce que ku ñu ne suñu koom-koom réew est-ce gis ngeen terme de référence amul luñ ci bàyyi suñu koom-koom réew mooy nu ñuy def ba secteur privé bi am am lu mu war a am ci ci marché yi nu ñuy def ko suñu pétrole ak gaz ak zircon dellu si si réew mi nu ñuy def ak ñuy def ak ñu ne jox nañ la ko ñu dellu si waat ñu ne la social bi mooy insécurité bi ñu ñi ñuy rey ñu nit ñi agressé paj paj mi ak yeneen ak yeneen ak syndicat yi jox nañ la ko ñu ne ah bëri na de mu ne jëmul foofu léegi dialogue politique nu ñuy organiser élection calendrier bi et cetera jox nañ la mais dañoo génne buñ jot ko fi léegi moom mooy le gouvernement du Sénégal ak ñi mu àndal parce que nee na li tax loolu gën a dëggal mën gën koo dëggal mooy su doon dañ ne se consultatif rek mais dafa ne lu ngeen décider moom laay def kon ñooñu ñoo yor Sénégal léegi ñooy gouverner ñooy décider ñooy buur ñooy buur ministres yi fi nekk la ñuy lekk riba la mun nañ démissionner <laughs> amatuñ fi njëriñ d'ailleurs amatuñ fi njëriñ depuis bu mu defee réforme moom ne léegi moom mooy lépp ci Sénégal exécutif boobu moom dong la kon ministre amatu fi njëriñ moom mooy wax directement ak directeur généraux kon beneen bi mooy dafa am wax yoo xam ne bu génnee ci làmmiñu kilifa askan gi mu jiite war naa jàpp ndax kilifa bu toogee ba ne man de nekkatuma ci ay njub jaay damaa bëgg ñu wóolante liggéey loolu li muy firndeel mooy juróom-ñaari at bu njur njaaj la newoon juróom-ñaari at ak lu tegal sax ndax réforme bii mu def changé 22 article constitution bi njur njaaj la kilifa nag boo xam ne nee nañ yaa jiite réew mi jiite 15 millions de Sénégalais nga ñëw taxaw ne leen maa ngi woon ci ay njur njaaj waaye nag léegi banaa ko parce que man xam naa ne sama daa jeex na bii moo ma dese ma dem kon léegi wóolu leen loolu wax ju garaaw a garaaw la li muy firndeel mooy kii waru woon jiite réew mi te nag nee na changé na dëgg la nit ku ne day changé ñun ñëpp bis bu ne ñu tooñ suñu borom jéggalu essayer changé waaye nag dama ne boo dee sab gone ci kër gone gi aay lool lu mu la wax bëccëg guddi mu day lu mu la wax guddi bëccëg mu day gone googu bu xëyee rek ne la bàyyi bàyyi soppiku la balaa nga naan ko naam di nga di nga tey tuuti te li fi Macky wax mu day kenn xamul lu mu toll dinaa def cinq ans def sept ma musa nommé sama frère par degré nommé ko par degré du ma euh, euh, ak yàlla def def naa lim naa fii bëree bëree bëri li mu wax mu dañ kenn xamul lu mu toll daanaka sax lu mu musa wax dañ la kon kooku bu ñëwee tey ne man soppiku naa balaa nit ñi di rumbulement di daw xanaa kay peut-être dugg ne def naa pare dugg naa Centre des Banques kay ñëw naa Macky Sall ndax am na ñoo xam ne loolu réer la si ñoom waaye lu fa nit ñi di defi dafa dem moom moo gagné réew maa ngi ñu ne gouverner ñu mettre ko à benn waxtaan lañu mën a seq ak moom mooy li nga xam ne constitution bàyyi na ko ko. yoon bàyyul ko ko muy processus électoral bi ak institution bi leneen lu ko moy ay tappale la ñaareel bi mu wax mooy ñaareel wax koo xam ne war naa tey xel Sénégal yi nee na ku moom bu ñu booloowul bu ñu booloowul nekk benn say waa bitim réew dinañu ñëw jaay ñu doole nangu suñuy suñu koom rawatina rek li nga xam ne mooy suñu ressource naturelle muy pétrole bi muy zircon bi muy gaz bi mu yeneen ak yeneen ma fàttali ko ni ñooñu soxlawu ñoo ñëw di ko nangu ndax moom moo leen ko jox ba noppi te ba mu koy def ba muy signé ku lire sama livre pétrole et gaz chronique d'une spoliation bind naa ko 2016 ba léegi gis leen ko ci weddi ab ab ab ab France sax ba mu koy def la muy def xam na ko da koo def ci tayeeku ba kanam jël suñu alal yépp tay na ko su yemoon foofu sax ñu ne waaw waaye yéen ñëpp fàttali ngeen ni février bii ci élection présidentielle boobu jamono ñun rek a bindoon suñu suñu suñu suñu programme ni bu bu ñu sénégalais yi wóoloo ba fal ñu lu fi nit xaatimoon ci contrat boo xam ne du intérêt Sénégal dinañ ko dindi yemul rek ci or ak pétrole ak yooyu ba ci marché public bi mu xamee ni wax jooju nag am na fu mu egg sénégalais yi loolu la ñuy wax di populisme populisme politi mooy euh, nu ma koy waxee ci Ah, Diallo Diop fi ñu koy waxee populisme mooy nga riirandoo wala essayer wax li nit ñi bëgg a dégg rek pour nax leen ba wëlbati leen ba am li nga bëgg ci la Diop taxaw moom it ne bu buñ ko wóoree ba jox ko deuxième mandat contrat yi da koy renégocier bi mu ko waxee laa def meeting xam nga fan may leen yàlla mi ma tiim xam nañu du compte du négocier benn contrat fi tam mayu ko ko. te moo ko signé te ñi mu ko signé xam ne lu mu seet ak ñoom ba tax mu signé kon sénégalais yi lenn lañ ko waroon laaj mooy engagement boobu mu jël dige boobu mu dige kañ la koy def ak naka la koy defee su dee nag dafa bugga làqatu ci gannaaw ñoom Famara Ibrahima Sadia ak commission xaw ma euh, dialogue national loolu day firnde rek di ma wax mooy ñemewul li mu doon parce que kilifa ab askan nga ne askan moo ma fal li nga liggéey da nga ko a ñeme assume def ko mais doo dem làqatu ci gannaaw ay nit mu teg ñu teg ci nag nii wax dëgg yàlla bëri na sénégalais wala am nag ay sénégalais ñu daal waaw comme noonu la demee rek ñun réewu dialogue lañu réewu waxtaan lañu bu wootee dem leen uyu dama ne xam ngeen biñ ko nee fii dañoo bëgg kuy organiser élection koo xam ne du far fel dafa dem ci benn terrain ne duma ko def duma ko def duma ko def ñu tontu nit ñi ne defuñu ko ba ngi ñetti yoon demuñu ci caaxaan bii demuñu dialogue ak Macky Sall lu dul poñ bi ñu wax te buñ ci tollee bu ñu wootee dañ jël suñu monsieur élection dem man soxlawuma dem palais caméra yi daan Sonko dem na pare demul palais soxlawuma ko ñi ma nekkal ñépp amul kenn ko ko soxla dañu ne Euh, noonu mu ko waxee woon noonu lañu gisee ni Macky juróom-ñaari at yi ba ci li mu mujjee def nii ci début mandat bi dafa def lu ko neex ak saa su ko neexee kon kooku waxam fi mu toll nii matuta duma sa doom parce que boo ko defee toll ñu ñu wax nag ni euh, dialogue bi nag dafa am. lu ko lal loo xam ne waxuñu ko mu wax ko sénégalais yi dañoo bëgg a nax sénégalais yi li ko lal ci jëkk mooy Macky jafe-jafe yi mu jokkoon ci réew mi te mu ëpp boppam te mu xam ni fi ne nii tële na loolu bëgg a fexe ba suul ko ci ab dialogue ak jafe-jafe yi sénégalais yi di dund ci insécurité ci violence ci rey gis nga loolu du commission. rôle président de la république ak gouvernement am moom nañu jox moom la ne moom la ñu jox réew mi jox ko budget boo xam ne ay milliers de milliards jox ko administration jox ko gendarmerie jox ko police jox ko renseignement généraux jox ko diplomatie kooku dese luñu ko dara moom moo war a régler loolu jarul muy dem làkkatu ci keneen ñaareel bi nga xam ne moom moom moo nekk ci gannaaw jarul bi mooy euh, mooy euh, nu muy def ba naxanteeg Sénégal yi pour que élection yi ñu war a dëgmal muy élection locale mu fexe ba dàq ko xam nga dàqoon na ko te yoon dafa ne mbay ñu ko mu mun na ko dàq mais warul génn ci at bi kon jëlee woon na ko mois de mai yóbbu ko décembre xanaa mu jëlee ko premier décembre yóbbu ko 31 décembre mais waru amul droit pour dàq ko lu dul am na li ñuy wax ñoom consensus avec le avec toute la classe moo tax ñi yoon nekk ci opposition ba dem fa lu ñu def ñoom la engagé parce que complicité la avec Macky Sall calendrier républicain bi dañu ko war a respecté parce que moom Macky Sall nag moomu réew mi yii nga xam ne nag moo ko créé ci ay problème moo ko réglé boppam moo fi créé parrainage am ñëpp xam nañ ni parrainage bi su dee 27 candidats élection présidentielle lañ ko mënul woon làkkarti waxuma laa soo amee cinq cent 500 552 communes. bu nekk war a am nu mu tuuti ci lu diis li kan mooy gérer parrainage bi fii Sénégal yooyu nag moo la xam ni moo ko créer boppam bëgg cee génn na ko génne nit da ngay am humilité léeg-léeg soo demee ba xam ni mbëkku nga nga ñëw de gars yi mbëkku naa wàññiwul dara ci sa daraja waaye bëgg a ñëw di ndax nit ñi naan damay créer ay commission ay dialogue loolu ci tappale la bu ci mujjee nag yemul rek ci. élection local waaye élection législative yi ñu war a dem 2022 te am na ci tànge ni suñu demee mën na am mu ñàkk assemblée nationale te loolu sax mooy am bu soobee yàlla mu bëgg a xool nag nu mu koy naxante ba ndax ko ba du am 2022 ak ñetteel bi mooy moom ci boppam xam nga ku la ne woon dinaa def 5 ans def 7 ans bu ñëwee ne la du def du ma débattre troisième mandat di boo ko gëmee li ñu naan taribat ya daak mooy doon nga sa loxo ci yëg nun de gëmuñu ci dara ci ay seeni stratégie nu ñuy def ba yooyu yëpp ñu tënk ko ci jaarale ko ci euh, dialogue boobu bu ci mujjee nag mooy njuuj njaaj ak càcc gi ne ngeen jéggal ma ci terme yi ci réew mi te ay ay àndandoom rek a ko def ay milliards yi milliards yu tomañ ci port ci impôt domaine ci euh, COUD soo koy lim du jeex mu toog ci loolu jàpp ay opposant ci ay waxu caaxaan tëj leen ñi mu gën leen réew mi ay ñi tam jël ay milliards yi mu toog ci ñii sax mu defal leen promotion de nama leen ay ministre ñi ñi ñuy wëti di di kokkali askan wi yooyu la bëgg a jaarale ci dialogue bi ba ñu suul ko ñu wax nag ni Macky dafa am projet bu mu am bi muy egg xam nga moom defe naa am na ku ma doon mu muy nekk ci PDS sax c'était l'aile fasciste du PDS bi muy ñëw moo ko waxal boppam ci làmmeñam kenn nettalu ko kenn dafa ne dinaa dinaa dinaa dinaa seyal opposition opposition dootul am ci réew mi gis nga projet boobu ba léegi génn ci nag. du monde comme on les loolu yëpp pour opposition ba ñoo la am waaye nag ñu dëkk pexem yàlla nag moom gis nga firaaw na bu mu nee du am kenn du ma kenn du ma kenn du ma nëbb jant bi doom bu góor mutti doom bu bi ko bi ko bi ko jaaxal këram la yaru li olof naan euh, guy gi nar a nekk euh, gi nar a xaw ma garab gi dara nekk buy yàllaa koy làq. ba law du ko gis. kon def na li muy def yëpp gis ni opposition am na opposition bi ni seen kanam loolu nag tax mu ne léegi naa ko changé su dee mënuma ko am ci jaay doole naa ko am ci naxanteeg ñoom ñu ñëw ñëw fekk si ma parce que ñi dem dialogue ba dañoo nangu ni ñoom ñi ngi dem ànd ak Macky Sall pour préparer fabriquer benn programme économique benn programme de gouvernance loolu mooy fekki naa Macky Sall loolu nag lañ ne ñun duñ ci mus bokk parce que am réew am démocratie pour mu nokki pour mu dox il faut ñaari am ci wàllu politique bi laa wax nag ndax yeneen fànn dina am il faut mu am société civile il faut mu am opinion publique il faut mu am média waaye ci wàllu politique il faut mu am ñaari il faut mu am ñuy gouverner am ñuy opposé wu ñun nag dañoo def suñu choix te choix ba jeex mooy dañuy opposé wu au régime de parce que jàpp nañu ni mënul jëmale Sénégal bu baax du lu ñu def nag par rapport ak Macky Sall ci jëmm man Macky xaw ma ko musuma koo gis su ma gisee télé la wala affiche musumaa gis musuñoo mbiyante gis naa dégg benn député xaw ma dafa tëboon ay biir xaw ma nee na nee na dafa maa gis kër Macky Sall xam naa ni dafa gërëm la mosu ñoo gisee kon kooku mënuma am ay ressentiment wala am am am nooneel boo xam ne sama diggante la ak moom jàpp naa ni nit su dee nit rek nit te moo gën man man damay gis damay jàpp ni ma gis rek ci jaabi moo a gën waaye doxale dem nañu àndul loolu c'est personnel mais moom mooy def affaire bi affaire personnelle bu ne ànduma ak yow yóbboo nga waajal nag saagakat yi xastekat yi sosaasekat yi justice bi lépp lu mu mën a dajale pour ne rek tey kii il faut ma fexe ko moom su Ablaye defoon ak moom du nekk fii mu nekk ku ne daan wër naan sëriñ si jàpp leen ci balaa mooy tëj dafa am yoo xam ne ñàkk xam mbirum yàlla mooy tax nit di ko def ndax nguur dafay jeex te di jeex na ba noppi du fa du firaaw na jeex na suñu waaraatekat yi boo demee ci jàkka yi xutba boobu nga xam ne nee naa saxoon nañ ko renouvelé waaye suñu wax dañ naan ay na Haaruun ay na firaaw na wala ni ñooñu nguur gi ñu amoon kenn xam nu mu toog waaye dama ne ana Soudan bi nu mu tuddati ana El nga xam ne doole gi mu amoon kenn am ko ana Bouteflika ana Ben Ali ana Saddam Hussein ana euh, Mubarak Mubarak bu Égypte ana ana ana ñooñu sax mooy ñi nga xam ne demin bi ñu demee demu doole la waaye ana ñi nga xam ne nekkoon nañ te jëlee nañ fi ana Abdou Diouf ana Abdoulaye Wade noonu lay demee moom it ci lu gaaw sax kon na delloo si xelam na delloo si xelam xam ne lu dul nguuru yàlla day jeex ñun nag am nañu droit opposé wu te dinañu opposé ma daaneel nag ci wax ak suñuy àndandoo ci politique ñi nekk ak ñun déjà ak ñi nga xam ne bokk nañu gis-gis dañu yaakaar ni war nañu mun a ñëw ànd ak ñun gii dafa nekk en danger il faut ñu sauver ko te loolu un pôle d'opposition fort moo ko mën a def réew mu ñu seetaan ba ñu naxasal opposition bi yépp ki yor nguur gi dina duma askan wi ba ca ngir kàmm te kenn du ci mën dara. ñu lancer un appel suñuy militants suñuy sympathisants de toute la coalition liggéey bi rafet la liggéey bi ñu def ci campagne bi te defuñu ko ak xaalis conviction lañ ci demee tabaarkalla rafet na lool waaye nag tey la suñu suñu projet politique commencé lañ ko jàpp am na ku ne woon je suis à l'an zéro ñu tey la ñuy doog door na nit ñi gën a takk nit yi gis nañu ak li ma noppi yépp maa ngi suivre nit ñi di déployer ci réseaux sociaux yi liggéey bu rafet bi ci weeru koor yi ndogu yi conférence yi partout vitalité bi ngeen wane gisuma ko feneen waaye lu ngeen doon def benn neen da ngeen ko multiplier par 10 parce que ñu ngi ci yoon bi nañu gëm li ñuy def te gëm suñu bopp bu ñu nax ak naxante bu ñu nax askan wi nañu gëm li ñuy liggéey wax ndaw ñi nag ndaw askan wi ndaw askan wi ne ñoom laay daanele dañ leen yàgg nax de suñu dajalee mbir yi rafet rafetal ko gars yi ñëw ak costume yi ak kaala yi ñu ñëw taxaw ne waaw Sénégal de ku waxtaan dara ay deal la yoo xam ne lu ñuy def ba redistribuer carte yi baatrewaat ko ñoom ñoo nga xam ne depuis mbalaa may judd ba léegi ñoo fi nekk di séddoo ñu séddowaat dem toog loolu rek mooy seen yitte yéen nag jeunes yi yéenay souffrir yéenay jël gaal yi yéenay dem ci désert bi yéenay dem pare jàng toog di some di xool seen waajur bëggoon leen jàppale mënu leen ko bu leen kenn naxati ci yooyu nous voulons une jeunesse consciente et saine te jeunesse boobu nag maa ngeen di wax na ngeen préparé parce que nag xeex bi dinañ ko xeex bi toog leen rek di déglu si bi continuer liggéey sur le terrain te préparé wu parce que bu soobee yàlla réew mi duñ ko bàyyi ak euh, euh, groupe bi nga xam ne Sénégal ñoru leen yittewu leen ma nag ci kilifa diine yi ndax ma ko ci ci ci français ñaar ñaari yii su amee nag dañuy dem gis kilifa yi yu bëri ne leen nag wax leen ci biir mi waaw dañuy waxtaan dañuy jalo bu ko defee ku kilifa diine woo sax nga naxanteeg moom gàntal ko ñu ne ah waaw moom de yéegul sa respecté wu kilifa diine moom bi muy def ay njombeem juróom-ñaari at yi weesu fan la dafa est-ce que dafa dégloon kilifa diine ñaata la ko nit ñi woo ci ñaan njëkk ci ay nit yu muy tëj wala yu muy dóor wala réew mi nekk tension parce que bëgg na modifier euh, constitution bi wala loi yi mu bañ a faale nit ñi jël armem dem barricade assemblée nationale ne lu ma neex laay def am nañu war ma torop ci suñuy kilifa diine waaye réew dafa am fu muy toll il faut que ñu jaarale mbir mi ci yoon te di waxante dëgg loolu laa bëggoon daanele di leen gërëm di leen sant di jéggalu ci guddal bi waaye nag il fallait que li ñu bëgg a wax yépp ñu wax ko parce que ni ñuy déglu kenn ku nekk ak li ko fi intéressé asalaamaaleykum wa merci euh, mbokk yi jërë ngeen jëf kon ci teewaay bi yaakaar naa ni wax ji leer na du jar a. à l' élection kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. ba da ngeen jox merci beaucoup.